Heavy Ways. nopp dalooti xibaaru bës tàmbaleeti waxoon naa leen ko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 daal da ngay gis waajoo xam ne day jaar fu nekk mu dëgër ndax dëkk baa xëy daal di ut kaala ay reena ki béjjanam daal di dajale ay sungufam ay yax leewa gët daal di ñang-ñangulu ma teg ci wut ay bëkk nekk yu koy dóoral ak jeeg bu mën a buy wër di ko diril ay client ma ne lii xew ci réew mi laa wax ma ne geng boobu dañuy mujj doon ab bande d'association de malfaiteurs bu rëy di arnaquer nit ñi rek boole ci nag léegi yeneen nationalité dugg si ci biir réew mi jël sëriñu tariyax def ko seen liggéey njombe lu nekk ñu def ko ci mim réew waaye fii seetaan bee bari sëriñu tariyax bi nag li mu def ëpp na ndax dafa liggéey ab jigéen bu am jëkkër violé ko ba mu dal di ëmb ba noppi doon ko jéem a yàqloo biir bi ëppata law ma soxna si ma ko def mu ngi wuyoo ci turu Ajob ajo moomu nag nee ñu dafa sëy lu toll ci fukki at amul doom ci noonu la demee ci sëriñu tariyax bi di wuyoo ci turu Bessoiré waa ji daal xamatul fu mu nekk violé ko ba mu jaare fa ëmb ba noppi ne ko yàqal ëmb ba ëskay soxna si di wuyoo ci turu ajoom mooy wax de nee sëriñu tariyax bi daf ko jox Hervé fa mu dëkk ca Dalifort ngir dafa waroon jël si ay gàllaajam ak i saafaraam yi ko sëriñ bi waroon a jox soxna si nee bi mu yegsee sëriñ bi daldi jël ab kaas teg ko ci putam naka noonu nee mu yëg ab tàngoor ci la sëriñ bi jëlee kaasu weer bi def ci am ndox dal di ko koy jox ndaw si nag nee bi mu naanee ndox moomu ci la gëj a xam mu nekk mel ni doonatul moom ma ne sëriñ bi mooy saay-saay si nag nee na gannaaw bi mu ko joxee ndox moomu mu naan ba xamatul fu mu nekk sëriñ bi daf ne ko sumeekul tëdd ci kaw lal bi waaw waaw ndaw si ne gannaaw bi mu defee lim ko wax ci la sëriñ bi dal di jaaree ci kawam violé ko ba mu jaaree fa ëmb ëskay waaye nag sëriñ boobu def ngombe bi di beesuwaare ma ne mu jul yomb ci moom de ndax yoon mujj na cee am yoon waaw góore waay ko foomu arabu boobu mujj nañ ko defeere ca parquet bu géejawaay hmm, billaay ma waxati ko bàyyi leen sëriñu tariyaax yi nañ leen rey de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax kii tamit beneen sëriñu tariyaax la moom dafa ti njombe lu rëy laa wax ndax dafa liggéey ab waay ba waa ji tàqale ko xelam mu yóbbu ci moom daanaka lu toll ci ñaari million hmm, ma ne da ngeen a dof rek ah dem leen rek sëriñ boobu mu ngi wuyoo ci turu asant li dëkk ca Kër Masar moom daal a Senghor dafa ñëwoon ci moom ngir seetlu sëriñ bi daal di koy seetal naka noonu mu gisal ko ne ko yow sa biddéew fenk na dal di koy wax avenir bu neex teg ci ne dina ko jàppale sa waay ne ci la ko sëriñ boobu joxe ay dottu waa ne bi mu naanee garab yooyu daanaka lu ko sëriñ bi wax mu def ko ah yaa dem de bàyyi leen sëriñ yi sëriñ bi dal na ko laaj di ko laaj di ko laaj ba yóbbu ci moom lu toll ci un million sept cent mille apatalaw waaye nag ci kanamu tribunal bu flagrant délit bu Dakar sëriñ bi dafa weddi ba tëdd ci naaj bi version bi waa ji joxe ndax ne kii di Senghor li ko indi woon ci moom mooy dafa ñëw ci moom ne ko liggéeyal ma xale bi may doxaan ndax ma mën ko takk eskay sëriñ bi ne mu jox ko ay sangaat waa ji di Senghor waroon ko fay lu toll ci deux waroon ko ko fayit ci ñaari tranche sëriñ bi ne gannaaw loolu sax a Senghor ci boppam woo na ko téléphone gannaaw bu mu ko defalee càngat yi ne ko càngat yi ma defal baax na ma ne ko nag xanaa boobu daa takk xale bi waaye nag ak loolu sëriñ bi lay yëpp yoon mujj na ko daan lu toll ci ñetti weeru kaso waaw góore way ñoom it nii rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Tambacounda doy na war moom dal ñaari jigéen yuy kenn ki di ñaareel ke ca des di ñetteel teg si ñoom ñaar ñëpp ëmb ba diis ñoo fa doon xeexoo ci ab dëj waay waay waay waay mim réew ma ne xeexoo bu metti laa la wax nag nee ñu lu ko indi du lenn lu dul mooy meew meew daal moo indi problème ba ba ñu xeex meew mi ngi ma defal ci kaas bi fees na ak meew mi ngi ma defal ci kaas gi feesul ma ne ñi dañoo làqu ci gannaaw meew mi rek waaye fiirange dong la moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw korona laa wax waaye nag li dal Seex Ñas mbas mi metti na jàpp ab nit mu mujjee faatoo ci kaso bi franchement ni ñuy jàppe ni ñi Sénégal ak ni ñu leen di traité war nañ ko xoolaat bu baax ak kaso yi ndax nag wax dëgg yàlla bakkan yi ciy rot mu ngi bëgg bëri mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz